سألت الله رب العرش يبقيني يزيد العمر أعمارا ويحييني لأرفع راية التوحيد والدين أجاهد في سبيل الله يرضيني من الدنيا رضا الرحمن أسعى ثابت الأقدام بيقيني فلا دنيا الورى يوما ستغريني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار وأزواجه الأطهار wattaabiciina lahum wa man tabicahum bi ixsaanin ila yawmi ddiin amma baad asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di ko delloo wàccuwaay bi mu yelloo ñuy julli di sëlmal ci sangu-sang yi ak muy sunu yenentu muhammad di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla bu mu deñ di dotti leeram fa moom ak i njabootam ak i saxaabaam ci biir loolu mbokk yi ñuy yëkkati kàddu nuyoo muy jàmmi yàlla ak xéewalam yërmandeem ak barkeem yàlla bu mu deñ di ko dotti ci mboolee mi mindeefam mbokk yi ñu delli siwaat ak yéen baneen yoon ci sunu jotaay bii ñuy amal ci ayu bis bu jot di borom bi subhaanahu wa taala mu dollee tawfiqal ay jaamam mbokk yi ku ñuy gunge ci suñu jotaay yi ñuy amal ñi ngi doon waxtaane lan mooy bëggante ngir yàlla waaye yool ya ca nekk ak ki nga xam ne dafa bëgg mbokk jullitam yan taxawaay la wara am ci ànd ak moom ci mbégte wala ci naqar wala ndax da a war a tàqalikoo waaye itam ñu doon waxtaane jullit bi ñan la war a bëgg ñan ñoo war a doon àndandoowam démb ñu yëkkatee jotaay bi ci xadiisu yenent bi sallallahu alayhi wa bi mu naan maa ngi giñ ci ki nga xam ne sama bakken mi ngi ci loxoom doo leen dugg àjjana lu dul da ngeen a gëm waaye doo leen gëm lu dul da a bëggante kon di laaj fan lañu toll tey ci sunuy ngëm-ngëm su fekkente ne lu ëpp tey ci sunu biir dañuy woote woo te duñu jëfee mbir yi doon waxi kase tey ab jullit bu amee tiis wala naqar ay mbokk jullitam tey ñooy xaawi ay suturaam ñoo koy beddi waaye ñoo koy jottalante li ma gën a yem tey mbir yi ni muy demee dangay gis koo xam ne danaan la bëgguma la ko woona wax sax waaye mënul ñàkk ma wax la ko lan moo ko ko puuse ñaawi jukko rekk ak bëgg la koo yëgal bëgg doon koo xam ne moo la koy nettali subhanallah fii lañu tollu tey ci koo xam ne soo moytuwul woowoon nga ko ci mbëggante ngir yàlla waaye tey bi mu amee ay jafe-jafe ak i nattu yow yaay ki nga xam ne yaa nekk ak noonam waaye ña nga xamante ne sax jotaguñu mbir ma pour mu egg ci ñoom yow yaay ki nga xam ne yow yaa leen koy jottali kon bu ko defee nañu gën a ragalaat yàlla ñu jàngataat ñu xoolaat lan mooy bëggante ngir yàlla ñu dellu ci xadis ba yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndax duma leen tegtal loo xam ne boo leen ko defee dangeen di bëggante mu ne na ngeen wasaare li nga xam ne moom mooy nuyoo seen biir yow sama mbokku jullit yow mi nga xam ne yaay romb sa mbokku jullit di fuuyu ak di xëcc sa kanam di aj ak di ko mu jaral la sax ngay faqastalu subhanallah xoolaatal sa toogaay dina jaadu ndax lii boo ko defee di nga def jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay nit tay beddi konte am na dañoo dëkk ci koñ kenn ku ci nekk ay dëkkandoo lañ yaa ngi xaar sa moroom romb la ñëkk laa nuyu ni koy xaaree moom it bu rombee noonu la lay xaare su ko defee nuyoo du am mujj gi lan lay indi noonoo am na ñoo xam ne lii moo indi seen seen noonoo te moonte jote amul seen biir am ñoo xam ne ay dëkkandoo lañ ci benn kër waaye lii moo indi seen noonoo te tey yaakaar naa kenn ku ci nekk war naa jàngiwaat en tant que jullit luy rafetal ay jukkoom liy tax mu bokk ci ñu baax ñi mu cay rawante ndax xam ngeen ne bon moom sakkanul du lu kenn di jàngi mbir la boo xam ne ku jéem mën ko baax googu nag nga xam ne kenn ku ci nekk dafa jàpp ne mooy li jafe ci boppam ne ca góorgóorlu mu def effort bu ko defee borom bi subhanahu wa taala daf la koy yombalal te itam am na loo xam ne wàññiwu la dara yow en tant que jullit damay wax ne man boo ma woowee ci ñàkk jëfee man ma woole ci jëfee en tant jullit wan la itam ni du yaay ki tax waaye danga am boroom ma am boroom kenn ku ci nekk am loo xam ne dañ la ko digal te li may def man la ko borom bi di fay man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha waaye summa ila rabbikum turjaun kon ñu góorgóorluwaat bu baax nañuy nuyonte sunu biir ndax soo seetloo nuyoo buntu la boo xam ne buntu jàmm la gis nga saafante saa yu amee ci jullit ak mbokk jullitam day ubbi buntu waxtaan muy jigéen ak moroomi jigéenam muy góor ak moroomi góoram ndeysaan dangay gis ñaan ñoo xam ne xamante sax amul waaye xëy nañu rekk nuyoo nga dégg yow diw mbokki fan walla foo dëkk Ah, yaay sama dëkkandoo bi ci koñ bi yow laay dégg yow da jotuñu woon xamante bunt ba ubbeeku na nga gis kooku bu demee ah moom day dafa baax ku am itte la ndeysaan yàggu fi de loolu yóbbee ko sa mbokk jullit jóg daan xaaral ma ziyaare ko ziyaare njabootam kon xam nga mbokkoo dugg na lan moo ko indi ndeysaan mooy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax nañuy nuyoo sunu biir yow jigéenu jullit boo rombee sa mbokk jullit bu jigéen nga lawaay nanga ko nuyu nga saafonteeg moom ajonte yi bari na mais kenn ku ci nekk lan la war a mën a jaay moroomam ci ñoo xam ne ñu ngi woote ne ñoo bokk benn pas-pas jullit nga jullit laa li ngay woote laa woote li nga gëm laa gëm li nga bëgg rek laa bëgg muy ñun ñëpp dañoo bëgg àjjana lan mooy sunu problème dama yaakaar ne yenn afkaar yi muy yenn xalaat yi léeg-léeg lu ci bari seytaane moo koy sànni sunu biir pour bëgg ñoo féewale loolu buñ ko ko may buñ ko ko may ndax bari na koo xam ne la muy yaakaar ci mbokk jullitam amu fa balaa mu koy xam mu daje ak moom ba toog ak moom ba waxtaan ak moom day yëg ne kon moom lam doon xalaat ay xalaat la yoo xam ne seytaane daf ko ko dikkee ngir tàqali kook mbokk jullitam moo tax ndeysaan nañuy saafante nañuy joxante ite nañuy waxtaan nañuy dimbalante nañuy yërëmante lii moo ñu war ñun jullit ñi pour lan beddukante bi noonoo bi jëfalante lu ñaaw li wanante ginnaaw bi pour lan te ñun ñu doon ñoo xam ni ñoo gën ci xeet yi nañu ragalaat yàlla ñu defaraat sunuy toogaay bu ko defee mu mel nii ñu ngi ñuy siñaale nii sunu waxtu jeex na di leen ñaanal yàlla jàmm ak tawfiq di ko sàkku ci yéen di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñu te jéggal ñu lépp loo xam ne njuumte la ak rëcc rëcc jërë ngeen jëf incha allah ñuy ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu wërsëgal ñun ñëpp ñu am la nga xamante ne moom mooy ab ngërëmam salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fa nurullahi jalla ulahu yuwini wa hubbullahi yasri يغفر لي ويرزقني ويعطيني سألت الله سألت الله سألت الله رب العرش يبقيني